alors tey nga ñëw euh, namoon nañ la say fans namoon nañ la trois ans nga ñëwaat def spectacle bu doy waar. waaw gis nga de euh, si plaza suñu euh, bërëbu ndaje la donc ñu def ko comme à chaque fois quatrième édition bi def ko concert de solidarité de fas yéene jox recette yëpp à des associations pour enfants donc idée bi nice na. affaire yi jaar na yoon donc alhamdulilah. c'est sa prestation déjà tey nag moom xaw ma la sentir ma trop sama bopp. <laughs> <laughs> xam naa xam naa su ma yëgoon sama bopp dëgg dëgg dëgg dëgg moom fii toj waaw vraiment. lan la lan préparation moo métti. préparation bi laa rey sama bopp nag jour ji ma ñëw joxe tuuti. <laughs> léegi lu ñu mën a xaaral gis nañ clip bi nice na chaque jour da ngay investir sa clip muy nice nit ñi di apprécier lan nañ mën a xaaral. Euh, nañ xaar yeneen i affaires yu gën a graw parce que carrière lañu woo te ay xale rek lañ donc di ñaan yàlla mu gën a mu gën ñoo dooleel ba affaire yi gën a yaatu ñu yóbbu ko partout dans le Sénégal incha allah. lan ngay souhaiter say fans ci 2020. Euh, bonne fête euh, bonne fête de fin d'année les amours je vous aime très fort merci d'être venus merci de me supporter de me de me soutenir je vous aime très fort. mention spéciale fan club Abiba Musique bu Dakar bu Podor Richard Toll ñoom ñëpp se sont mobilisés sonn ci vraiment et merci beaucoup. gis la nga jooy tuuti nga way sa benn fan bu génn àddina sa rangoñ tuuru. bon j'avais cru vraiment pouvoir tenir mais ça bon sant yàlla on s'est reconcentré rapidement et voilà sant yàlla bu baax. 2021 daal loolu moo si voilà sant yàlla donc di ñaan yàlla bu kenn manqué ëllëg ñu koy def ay années yu bëri kenn du manqué incha allah. merci merci à vous. merci. Eh, fàtte naa wax. Biddew boutique moo fi jaar Glams Beauty moo fi jaar ak Afia di di make up ak man jox ci man la quoi ci yére ci